waaw ah, ah, baax na sa garant ana mu ana booy ñaaw ba guddiwul non non léegi rek guddi guddi lëndëm lëndëm guddi fol métti golo wàccal am na potu ndàll la bu ko jox sa morom borom sa alaaji duudu ma ngay wis alaaji amaat ma ngay wis lu safatul dootoo saf alaaji amaat la muy wis lu mu ma kenn du ah borom lay wis xaw ma borom kenn jaay boppam publicité la bu yàgg publicité wala gars yi pare waaw bu mel ne jekk na. xoolal booy ñaar fu mu fële. xoolal oh. booy ñaar fu mu fële amaat. ndeysaan. ñaaw ngi nii. booy ñaaw ngi nii. di gën a bari. ñëw kër baayam war fee démarché ana booy ña ana booy ña Cheikh Yérim Ndoubane bi maa ngi koy seen noonu maa ngi koy seen noonu laa ilaaha illallah şehrin beyni. Zabıta Cemalleri, Zabıta Cemalleri, Cemalleri Cemalleri. Vallahi yanımda. Banyadan aparayım. ma ngay dem Boy Niang ma ngay dem Boy Niang ma ngay dem day enchaîné amat solo fi dafa ñëw yi door maanaam guddi guddi. maanaam sa bopp bi loo def

mat Boy Niang dem na. Boy Niang dafa waroon dafa ñëwoon. saafoon teg ak waa Pikine. waaye booy Niang ma nga solo ca bar ñi. laa ilaaha illallaah Boy Niang lan la lii lan la demoon wuti si la bu ya man xaw ma ko amaat. Ah, Boy Niang lan la ji woon si la buy. laa ilaaha illallaah waa du dafa demoon i Modou Lo ah xaw ma. waaye eh, Amath lii a la. ci des daal. ah surtout Cheikh kii lu mu nar lu ah, xam naa lu seen naa ko am na lu mu teg si bopp ba. ndeysaan. Oh, oh, oh, oh xoolal waa Pikine yi xale yi génn nañu. oh. ba ñaaw ñu noonu di dem. mu ngi noonu di ñibbi di dem. entraîneur rigueur Modou Lo xam nga gars yi dañu naan Modou Lo athlète la mais Boy Niang kaw ba ci dafa entraîné dégrainé ceene freiné def ñàbb. dégguma Boy Niang def ñàbb. Boy Niang daanaan la ñu gis Pikine waaw Pikine instant yi koñ bi nee na teg waaw sa copain Malaw pression mel na ni pression am na de gars yi pression moo leen jàpp mais ak seen mbër bi fan la nekk booy euh, mbër Boy Niang en tout cas mi

wooy Niang bu nee tësoo Modou Lo da koy ne yaaram ka laa yaay sama baay lu mu leen doom leen doom bëgg for bëri man maa la wax li nday mbay la léegi ñëwatal ci li nga xamante ni mooy lamb bi tay ci ngoon ca arène nationale fa ngay tàmbalee waaw pale boo waaw bu ko doon reporté tey a ah damay ne laa ilaaha illallaah war a ma jëm nag kenn wax ma jëm nañ daal yi bàggu war na mbaam bi ci tur borom lay tollool la pression monte la tension monte si vous êtes cardiaque prenez du sucre Boy Niang jóge na Pikine la ma ngay dem tan tan tan tan gilgil ya ma ngay ju ma ngay jubal arène nationale la vie au monde dans le ciel c'est maam Yérim Ndoumane la vente cappalu cappaculi bu jeexee rek jeex na Boy Niang la ilaha illallah Boy Niang nee du ma ko may dara Boy Niang nee du ma ko may kopp fonde du ma ko may botu ndaa wara ba jam na kañ wax ma jënd dañ taale Boy Niang Boy Niang Boy Niang nee na Modou Lo loo koy def eey mbay nene mun lëndëm lëndëm bukki for boy Boy Niang in pëtalu in taana baana sigini ban Boy Niang nee dama koy pilincu nee na dama koy sa bëgg bëgg bëgg yooyu booy ñaa maam yi dum dumbaan bu jeexee rek jeex na si gas a rek gas yi añaajo mënu ko andi regretté naa fi yow mënu ko mexe mexe ibi jee mënu ko butakala sukkandu mënu ko kolle songoon nañ ah songoon nañ songoon nañu ko attention xang rang mang fang xang booy ñaa dana ko rey am jëb joxal njaay booy ñaa na ko am jëlal fobal nangul booy ñaa na ko takk na Modou Lo Modou Lo angura ko léegi booy ñaa fàqan na ko booy ñaa wéyal na Boy Niang daan na jël ba rëy na la ilaha illallah la victoire de Boy Niang la victoire de il fagne il fagne fagne fagne fagne ca